assalamu sama waa tim tim sama Adja Traiteur maa len di nuyu di len ziar di xon ngeen def j'espère que ñu ci jamm suñu réseaux sociaux yaa ngi noonu mun ngeen ñu ci bind ñu échanger pour des questions et des recommandations ñu remercions suñu ay partenaires le groupe agroalimentaire Seifa été baangi ngi wut len ci poudre jus defal sen et jus naturel été ak jus ñoo and tey na dañ leen di defal viande sautée ben recette bu gaaw ñi nga xamantene dañuy régime ñu bëggul diwlin togg bu gaaw togg bu bio dañ leen di indil tey viande sautée pour réaliser ko c'est simple viande sans os la jënd maanaam yàpp bu amul yax yéen a ngi koy seeni yàpp rafet ma dagg ko en de petits morceaux un kilo cinq gis ngeen amaale woon naa ci cœur am naa ci graisse donc euh, viande bu baax daal poivron vert benn laa jël ak euh, poivron rouge moitié ku am poivron jaune mën nga def donc vert jaune rouge comme mu nga def vert cassé, comme mu nga def rouge cassé, ça dépendra de la personne oignon 500 grammes soble ma dagg ko dagg yu comme ça mu am jëmm sama togg bi yëpp rafet euh, am présentable comme ingrédient li, ay euh, canne salade la woon bakkat yi dama ko dencoon pour nokos donc euh, laaj benn doom bi laa xool li guana piment laurier et la persil rof pour mon justement sama ñetti kudd yu vinaigre aussi euh, demi tasse de thé et des épices coriandre cumin herbe de province. donc ce les ingrédients mon ngi ñu réalisation recette tey na damay dëbb sama nakos au ma nakos sama frigo vite fait ma daal di de ci de gi ba mu sotti sama diwlin tuuti diwlin def non seulement euh, diwlin bu ba pare graisse donc euh, dama ko calculer comme ni ngeen ko xamee yaakaar ko sama j'aime pas monsieur n'aime pas c'est pas bon pour la santé donc nous daal pour yàpp saf xorom donc dañu pour xorom bi ndugu yàpp bi ñu bàyyi nag yàpp bi n'oubliez pas de vous abonner en bas de la vidéo avez le bouton s'abonner cliquez abonner. ko comme ça ñu gagnons ça, bëri ngeen aimé vidéo yi daf may encouragé ma gën am courage de tout le temps permettre aussi algorithme YouTube de recommander ces vidéos facilement à d'autres utilisateurs donc vous gis ngeen yàpp yàpp bi mi ngi toujours ndoxu vous avez vu là on va ajouter de l'herbe de province herbe de province les de def toute toute def après coriandre et cumin pour mon euh, maïko goût donc euh, chacun de ces épices on en met un peu pour ne pas que le goût des épices domine trop c'est juste pour relever le goût donc il faut mettre un peu d'épices avec les épices il faut pas abuser du tout et puis si tout y def il faut def lu bari muy wéxal togu bi lu pour mu am donc la ndoxu bi jeex na gis ngeen suñu yàpp commencé na doore ma doga ñu ma bañ mu donc dama bay ba yàpp bi ak xorom bi épices ñor yépp dugante goût bobu ma pour aussi ñor ñor bu yem jugumoo nokkas bi ñoro ñoro ñor bu bi disparaître donc dama ko yéex faire. def dama ba bi ñor comme damay sauté viande sauter la wax je vais attendre la fée pour mettre le reste des ingrédients là la viande est déjà cuite je vais rajouter euh, la marinade que j'avais fait tout à l'heure du poivre du sel un peu encore et là je vais mettre euh, de, de, du beurre pour que ça soit très doux beurre bi dama ko yéex def vinaigre pour que mu nooyee sama yàpp daa def sama persil gis ngeen dama ko yéex a def parce que yëpp c'est des légumes donc bëgguma xaar ba ci dama xaar ba ci fin bi ma def ko histoire juste de sauter quelques minutes mu daal di wàcc dëgëraay bi wàcc sable bi ak poivron bi laa mujjee defar ni daal di yëngal lii cinq minutes donc laa koy bàyyi histoire soble bi dee rajouté war naa vinaigre ak xorom tuuti pour euh, mu bañ a manqué comme rajouté naa soble te soble bi aussi dem jël na poids donc euh, la gis ngène ñu daldi di histoire de 5 minutes ma yokkaat poivron bi dafa daggoon dafa desoon ci biir te daggatewu ma ko daal di ub gis ngeen mi ngi sote nank yéen ngi sen feuille de laurier bi ba koy yokk guu daal di touti xaar mu ñor donc tey viande sauté la len indil ñi def régime mun nañ utiliser pour diabétique yi amul diwlin amul matière grasse bu bari graisse bi euh, dafa ànd ak yàpp bi donc euh, moi Lolo c'est très bon pour la santé amul ay kaana yu ëpp ak ay xorom ak yu ëpp ak ay bouillon non on a cuisiné naturellement des épices des légumes de la viande donc suñu yàpp ñor mën nañ fay man ni la ko yemale je me mu neex nga togg ko ba mu ñor mais man ni la ko yemale parce que ma bëgg a sentir soble bi poivron beeg yépp et puis week-end la donc dama koy def ndékki pour monsieur ku nekk mu ngi ko def lu la neex accompagner ak lu la neex ñu remercier suñu ay partenaires été baa ngi ñëw dama lay uti seen poudre bisaab bi seen poudre bouillie, comme ça seen été neex avec des jus locaux ñu leen di remercier sama jaa traiteur amul seen fay gis naa les messages d'encouragement les félicitations ça me fait un boom au cœur jaa ngeen jëf à très bientôt pour une nouvelle